fierté nga ci moom ku ànd ak yow fierté nga ci moom lii nga def nii lii mooy doomu un vrai citoyen un républicain ku bëgg réewum mbàkk yu fay rek lay nirool donc ngaa liggéey am nga jom am nga fulla bëgg nga sa réew am nga taalibe te loolu rek doy na ci doomi aadama lii nga sumb nag ñun li nuy ñaan yàlla na ko yàlla sottil yàlla na nga ci am ndam sa ndam mooy ndamu Sénégal sa ndam mooy sa ndami mbokk sa ndam la ñuy wër fu nu toll ndaxte foo toll rek ndamu réew mi rek nga bëgg fay yàlla na la yàlla taxu di am mbégte nag ci Sonatel yéen nii rek ngeen mel sonalu leen kenn liggéey dong mu leen tax a jóg jërë ngeen jëf. merci ah, jërëjëf. <laughs> ok jërëjëf jërëjëf euh, monsieur Sékou jërëjëf monsieur monsieur Faye léegi nag xam na dañuy jublu ci conférence de presse conjoint bi dañuy ñaan nag. Euh, voilà journaliste yi nekk ci kaw ñu may leen ñu voilà on peut faire des questions partir de là-bas Ndaw kon euh, mu géral ñu loolu kon nag ñu bàyyi xel ne y a partie de la presse écrite mi ngi ci kaw ndax jataay bi moo xat ñu leen di sant ci teewaay bi ak taxawaay bi yëpp di leen sant di sàkku bu ñu amee ay laaj ñu jaare ci Djibril Ndaw ci kaw mën a waxtaan ak monsieur Sékou Dramé ak euh, monsieur Amadoul fay euh, est-ce qu'il y déjà des journalistes à ce niveau qui veulent poser des questions waa ñi ngi ci kaw nañ leen may ñu wàcc rek waaw tu tu tu règles ça Djily voilà waaw mbokk yi ñu ngi leen di euh, yëgal ne am na cocktail bu am ci kaw ngeen dem ci kaw daal di daal di xéewalu incha allah ñi ngi ñaan ci mbokk yi ngeen dem ci kaw ci cocktail bi bu ko defee ngeen xéewalu ñaari PDG yi fekk si leen ci kaw